certaines déclarations yi mhm. te état daaw top topp mhm. muy ñi doon opposé muy ñi nekkoon ci ci parti au pouvoir mhm. mais dañ dan gis état du len top te lolu justice waxutoon loolu parce que règle yi moo ko prévoir maanaam suñu réew dañ ciy tere ay insulte waxuma laa nan nga koy def koo xam ne autorité la donc buñ gisee tey ñu ñëw ci nouveau régime. ñu gis des gens ñoo xam ne dañu bëgg a yóbbuwaat ci lancé boobu ñu nekkoon. parce que tamit bu fekkee dégg naa la lu tax sax nga xaw a def li nga xamante moo di rapprochement bi. bu ñu nemmeekoo kenn ki nga xamante ne dafa bokki ci ñoom. mu di euh, Azoura Fall. keroog euh, ba le réew mi Bassirou Diomaye fay euh, dal di ñu koy tàpp askan Sénégal di koy tàpp dem na ci euh, début jour yi mu waroon def palais kii di Azourafa am cadre yu yëkëti té dafa dara fekk ko est-ce que tamit loolu mu ñu wax c'est deux poids deux mesures. loolu tamit liñ ci mëna wax moy justice da fay équilibré. Mhm. justice warul prendre parti ci dara. Mhm. té li Suzanne def du Ousmane Sonko moo ko condamné. Mhm. le président Bassirou moo ko condamné rek liñ voté au niveau de l'Assemblée nationale. mu nekk fi en moment ñu war ci soumettre moo nanguwul ay saaga nga koy teg ci nit ku dul autorité waxuma laa kuy autorité que nga ne Pastef que nga bañ a nekk Pastef ku ko def yoon daf la war a topp mais li may bañ askan bi ñu naan euh, régime bi ñu fi jógee

tey justice bu baaxutoon moo tax tey ñoom ñu doon topp ñooñu di leen teg ay injustice ba ñooñu mujj ci seen résister force reste à la loi bi da nga leen di mujj wutal lay non non damay wax parce que il faut ñu comprendre di justice mhm. dafa am solo ci réew soo nekkee ci réew dafa war a équilibrer waroo prendre parti mhm. waroo créer dara yoo xam ne gis nga ne lii c'est des actes d'injustice nga koy teg ci ay citoyen mhm. léegi nag boo ko tegee ci citoyen bi moom amul force amul dara leen la mën muy résister comme ni ko fi jeunes yi doon defee ba tey projet bi mën a mettre en place léegi nag ñoom ci résister boobu ñu doon résister ci lañ demoon bay def loo xam ne c'était pas prévu par les tests mm. du yoon mm. mais da ngay xool fondement dafa am solo parce que tey imagine toi Ousmane Sonko tegul tëb wax loolu maa xam jàlloo mm-hmm. fan la jóge xëy na tuumaal ko loo xam ne ku mu nekkoon ci yow muy man muy keneen maanaam nit ki looy teg looy wax nit ki rek jëlal sa parent nga teg ko fa nga wax ko su jàllee c'est bon su jàllul nga teggiwaat ko xam ne lii du lu rafet mhm. nga xëy un bon jour nit nekk ci benn dëkk ay parent nekk mu am ay njaboot nga xëy di ko jiiñ ay viol ay ay lu kenn xamul lu la leer na yow lii ci religion ci morale ci droit foo dem doo am dëkk nga ko koy jiiñ kooku bu demee ba ba ñëkk ba résister mën na def loo xam ne ce n'était pas prévu par les textes parce que boo ko tooñu toon tuumaal ko loolu du ko ci fekk mhm. dama joxe exemple rek

ci régime bi fi génn toog na ne dañoo war a rey Ousmane Sonko. waaw waxoon nañ waxoon nañ dañu war a lakk. te loolu sax xam nga délit la enquête de flagrant lan lañ waroon a ubbi poursuivre ko fa mu ne defeere ko mais justice moo fi moo suuxee woon. Mhm. li Guy Marius defoon du yoon li Ousmane Sonko bi defoon du yoon mais ñun en ce moment. su ñu ci wax ñooñu mhm. il faut nit ñi xam ñooñu seen i wax ça importe peu jamono jooju ay opposants seen i wax. bokul ci constitution bi du question ñom dañ ko waxoon rek ñun dañ ci wara a semaine kon rupture du ma kon ni Suzanne def tay kuy fallu faluwaat après bu la nexé ñu ne Suzanne defoon buñ ko poursuivre ñu né Suzanne defoon na ko. kon ce ko veut dire que ak ki nga xamanté mom modi Serigne Bara Ndiaye mi ne euh, démocratie nak euh, bu amé ab dëkk ñoo tëjee euh, nit mu wax lu mu xalat mais. loolu mom dama ko koy nangul parce que bu ko waxé mom la concerné xam nga tay il faut tamit yenn motifs bala balaa koy jël ci réew ci lu jëm ci justice. Mhm. da nga wara a jàng. ba pare xam dara ci règle yi lim prévoir mais boo taxawee nga ne démocratie nanguwul tey ku saaga ñu lay nangu na ku saaga ñu duñ la jàpp loolu Ba dafa wax lu ko neex. moom Davida mi ngi lay euh, jaajëfal mi ngi naan bravo latin. maa ngi koy mi ngi mi ngi mi ngi si commentaire yi euh, ci en direct euh, fële YouTube di la wax aussi tamit yéen suñu ay internautes ci ngeen bokk vous pouvez participer à travers les commentaires mais aussi d'ici quelques jours à venir incha allah dinañu ubbi li nga xamante ni moo di antenne bi ngeen mën a bokk ak ñun waxtaan bi ci biir plateau bi ñu wéy rek ba tey ci. les les li ma ko bëgg leeral. Mhm tey du li Ousmane Sonko waxoon wala lu Guy Marius Sagna waxoon moom ku ko defoon rek ci ñoom ñoom force tey dañ ko war a defaat ah, non non rupture lañ woote te ñooñu bañ koy def seen cas bokkul ak bu Suzanne ñooñu jël nañ ay injustice teg leen ko di leen jàpp ak lu ñu leen koy teg di leen tuumaal mhm. ba tax ñoom demoon nañ ba bi ñuy résister di def loo xam ne yoon waxu ko ñoom li ñu leen tegoon moo tax ñu koy def mhm. te justice boobu xamutoon lu mu war a toppee nit mhm. ak lu mu war a toppee nit

moom nee na euh, soxnaam mi ngi tam mi ngi tambaambaalu ci ni ko waxee il en public fièrement ak euh, li nga xamante ne moy sac bu 2 millions est-ce que on doit en arriver à un tel euh, euh je veux dire niveau de d'opposition di tudd ay sac c'est des détails man personnellement la wax buggaan ma lay wax la rek man dama koy comprendre parce que buzz moom moom ni mu koy wouté bokul ak ni nga xamné askan bi dañ dañ koy xaar certes li muy am ni sax ñuy toog di wax ci moom pour man dañ koy jox importance. Mhm. mais il ne le mérite pas. Mhm. mais comme que journaux yi moom chaque jour mu bind ci. te ñun tamit bu ñuy commenté journaux yi la ñuy commenté des fois ñu def wax ci moom. Mhm. mais li ko gën a metti nag mooy xam nga ku dem élection nga toog day xaar deuxième tour. deuxième tour ya far amul nga toog na yow da nga koy xaar ba tey kooku bu da neexee mu continuer ci lancé bi. tere wuñ ko mu opposé mais dinaa ko conseillé na dem di opposé ci lu ñu amal njariñu askan bi mhm. parce que tey bu nee euh, le président jëlul benn jéego jëmale ko ci mbiru jeunes yi nga xam ne ñu ngi dem ci géej gi mhm. kon pour man dafa amul information ci le nouveau régime mhm. parce que xam nga le président de la république actuellement mu ngi jël ay mesures pour après appuyer ministre microfinance docteur Alioune Dione comment mu ngi koy appuyer parce que déjà mu ngi koy appuyer pour mu saafara jeunes yi nga xam ne actuellement ñu ngi ci réew mi amuñu liggéey te ku ne xam na ne ministre microfinance Alioune Dione bokk na ci ñi nga xam ne seen poste yi compétence moo tax ñu teg leen fa. yaakaar naa ñëpp ñu ko teg ay compétence waaw maanaam suñu koy waxee maanaam ñoon dañ leen dañ ci lu leer lañ ci am ay mm-hmm. preuve yu leer naññ parce que docteur en économie la. tey réew ku ne xam na ne économie dafa am solo. moo ko yor moo ko yor bu économie bi yéegi jeex na. Mm-hmm. léegi yow kooku boo ko jëlee jox ko sa ministère microfinance buy financé dina xam xam bu baax fa mu koy dugal. comme li Guy Marius doon xeex rek au niveau de l' assemblée nationale ne tubaab bi dañuy jox xaalis bi ñu war ko financer mais dañuy wax fañ koy def te fañ koy def du yëgal suñu économie tey kon buñ ñu amee suñu réew koo xam ne xam na luy yëgal économie ñu jox ko mu jiite ministre microfinance tey bu ko état appuyé buy financer dina xool lan mooy dugal ay revenus ci suñu budget mhm. ba nga xam ne suñu budget bi nga xam ne chaque président bu ñëw six mille milliards ngay dégg sept mille xanaa tey man Modou Sow su ma doon créer projet man am cinq millions balaa deux mille 30, war na mën a millions mhm. donc budget bi bu ci ministre bi finance Je yi aussi nañ booloo mënul de nañ toog ni le président amee sañ-sañu pour dimbali jeunes yi aussi noonu war a projet de saisir ministère ministère ku en ce moment dañuy liggéey dañuy respecter ñu conditions réunir na mérito nga ñu financer

Mhm. waxoon na la ne tubaab bi noot bi ñuy noot dañ ciy wax ba mu dañ mhm. def nañ discours di ci wax base militaire yooyu yooyu noonu yëpp gars yi ñu base militaire ko layam layam layami rek na suñu diggante bi nag loo ci gisoon ay contrat la mhm. contrat na mënoo ko romb de façon unilatérale bu dee ñaari parti ñu seen obligation moo tax ñu ne dinañ ko renégocier te président bi assuré nañu ne dina ko renégocier kon dañuy xaar ñu continuer ak ak ci ci yoonam quoi ñu xool lu muy joxe. mais daal li may wax jeunes yi mooy. Mm-hmm. nañ booloo dem seeti le ministère microfinance docteur Alioune John su gisee ne seen i conditions réunir na mu financer leen mais nag état bu leen di financer na leen di accompagner avec des techniciens bu dee ci maraîchage na wut ñoo xam ne mun nañ agriculture ñu accompagner jeunes yi nga xam ne booy liggéey la ñuy def chaque fin du mois ñu dem banque ñu fay leen bu jaree sax nga leen di fay ci carte ga wala et cetera doo mën a xàmmee kii enseignant la. kii baykat la kii médecin la pour complexe bañ fa am nañ ko def nga demaat ci élevage aussi nañ leen accompagner par des ñoo xam ne xam nañ élevage mhm. nga créer booy des projets ñu dem liggéeyi chaque fin du mois aussi maam nañ leen di accompagner ba nga xam ne nit ki jeune bi day liggéey wàcc du question da ko jox xaalis mu dem mën na dem carte ko wala mu def yeneen ak yeneen mhm. mais encadrel booy ba nga xam ne xëy wàcc la ñuy am chaque fin du